Pam Niang la chargé de la communication zone 2 Ndindi ànd ak suñu coordonnateur El Hadj Fallilou Ndiaye ak suñu adjoint coordonnateur Abdou Biga Ndiaye ak suñu président Moustapha Ndiaye ak mboolem responsable femme yëpp ànd ak seen njiit di May Jaw ñun waa zone 2 xool dëkk bi li fi président Macky Sall def mu ñor ñu lool nag moo taxoon ñu amoon initiative sargal ko ci lim fi def am ñu taxaw nag ne sargal googu ñuy sargal président du fi am. ñu leen xamal ne liñ bëgg a def du ñoom ñoo ñu koy tax a def te damaa gëm ne bu fekkee bëgg nga président Macky Sall buñ koy sargal da nga caa war a jàpp waaye waru koo yàq lii firnde ji mooy initiative bi ñu am bëgg biñ bëgg président topp biñ koy topp tax na bi ñu jàppee le 27 te bàyyi woon xel ne inauguration terre bi le 27 la ay kilifa yu mag yu nekk ci département bi wooñu ne ñu day la date bi ngeen jàpp mooy inauguration la vingt mooy terre bi la vingt sept bu ñu sañoon dey ñun dañ koy fekk ndax xam nañ ndindi liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal président Macky Sall xam nañ zone 2 ni muy liggéeyal président Macky Sall kon bis bu ngeen di def ñun war nañ koo mën a fekkee. suñu si suñ courage ak bëgg président Macky Sall la tamit dëgg nag parce que ku xam TER bi xam ne bokk na ci réalisation yi gën a mag yi président Macky Sall def kon dañuy bàyyi li ñuy def yëpp dem Dakar ànd ak président Macky Sall ci TER bi ñu inauguré ko ba noppi ñu dikkaat Touba ku ne xam na ne campagne bi le huit lay commencé ñu jàpp ko le huit ànd ak ànd ak euh, zone 2 yëpp sargal président Macky Sall ba xam kenn danañu ko fa teree def ku ne xam na ne président Macky Sall boobu ba léegi mosu fee te tegiwul tànkam benn yoon barki Demba Ndiaye moo ci mujj ku ne gis na hôpital bi nga xam ne nii def na ko fi muy opital boo xam ne niveau trois la muy muy hôpital boo xam ne ay milliards la ci def kon jot na ñun waa Ndindi ak waa zone de ànd ak suñu coordonnateur El Hadj Ndiaye sargal ko ba tout ba adduna yëpp xam ne président Macky Sall jàmbaar la. loolu moo waraloon suñu daje tey pour wax ak askan bi wax ak waa àdduna wax ak waa département bi xam ne ñun fañ nekkoon ñu ngi fa bëgg biñ bëgg président Macky Sall mu ngi fa te amul kenn ku ñuy xoqatal baa ku ñuy tiital baa ñuy lapp-lapp ndax ñun gëm-gëm bi ñu am moom lañ am te moom la a am ñu ngi ci président Macky Sall musuñ koo bàyyi benn yoon ñun moom bokku ñoog ñi nga xam ne nii dañuy wër dañuy wër garab ñun dañoo gëm liñ doon gëm suñ bopp xam liñ doon xam liñ bëgg xam fi ñu jëm xam ne li fi président Macky Sall def amul kenn ko ko fi def loolu moo waraloon suñu daje tey pour leeral suñu candidat bi muy honorable Matar Diop ñun moom choix bi dañu fee fekk ñun ak ndindi ak li ko wër ndax dañoo mës a gëm ne honorable li muy liggéeyal président mérito na lu ëpp lii mu nekk kon nag honorable ñu ngi lay wax ne ñun ñu ngi sa ginnaaw bërki démb ak démb ak tey te gëm nañ nag ndam li ñun danañ participer ci ndam li te da nga koy am incha allah parce que mérito nga ko incha allahu rabbi le 23 mars le 23 janvier gëm nañ ne danañ ne viiw binno Benno Bokk Yaakaar vive honorable Matar Diop vive zone 2 Ndindi incha allahu ñun bokk ñoo ñi nga xam ne ni dañuy santaas la ma la waxoon sa saal ba rek nee naa la Ndindi ak li ko wër ñun moom doxuñ ci santaas benn yoon lañ ciment lañ benn yoon la ñuy tooy bun na la yow la yow la bu na la du yow du yow kon nag na nga xam ne ñun ñi ngi sa kanam ñi ngi sa ginnaaw bu doon des kenn ñun lay doon ñun waa Ndindi ñi ngi lay wax daal ñi ngi lay souhaiter la 23 incha allah ndam li dikk ñu ñu département bi Sénégal jëm kanam. ji moom ku ne xam na ne yàgg na fi depuis 2019 mu ngi fi loor ginnaaw 2019 sax mi ngi fi mais ku ne xam na ne 2017 am na ku fi nekkoon du ma sax tudd turam parce que man bugguma di ànd di tudd turu koo xam ne ni ci chantage lay dox ak ay ay tappale ak ay sos ñu ànd ak moom ci ànd ngor mu ñu ne fi njukk dem ànd ak Sonko ñu des ak suñu ngor ñu ne ndindi kat ak li ko war ay xale ñoo fa nekk Alaaji Njaay jóg daan ne man lépp luy defal ndindi man maa nga ca lépp luy sagu Ndindy maa nga ca dinaa nekk seen kanam dina nekk seen ginnaaw dinaa leen jàppale 2019 métti woon na trop ku ne xam na résultat yi Ndindy am ak àll bi benn kenn benn kooku amu ko fi benn zone amu ko fi lépp ci grâce ak coordonnateur Alaaji Ndiaye furti ku dugg àll bi di dawal ba otom panti mu jël xaalisam dépasse ko ne ko ci man président mak Sall jaral na ma ko kon nag duñ toog ba tey jàpp ne yëf yi neex na nga ne yow da nga koy jël nañ xam ne xale yi fi nekkoon ñu jàpp ay xale màgg nañ te dañoo bëgg destin amee ñun loolu amuñ ci problème parce que loolu miin nañ ko ñun miin nañ ay menaces ak ay chantage ñun loolu doxuñ ci loolu ñun engagement lañ am ak gëm-gëm lépp lu ñu engagé jëm ca gëm nañ la dañ ciy àgg ndax kin ànd moo toll noonu président Macky kenn du ànd moom di tiit baa ngay xalaat parce que fi jaar moo gën a métti te dafa régné ba agsi fi mu kon ñun ak président Macky Sall amul lu ñuy tiit chantage yooyu yooyu amul njariñ parce que kii chantage xam a métti comme li may wax chantage yam chantage woon a métti tey te déewul dañ koo assumé ba agsi fii ñu agsi kon ñun ay chantage moom yaakaar naa jaaxaluñu ndeysaan sama maman dama koy comprendre bu la yàlla nattoo nga ànd ak koo xam ne addunaam yëpp ay fen la ak i tappale man la laa dugal ba dugal la ci loo xamul man xam naa ne loolu pexey Moustapha la maman du ma ko wax dara parce que xam naa ne dafa xamut boo déggee li wax xam ne loolu ay sos la ay tapale la lool amut ñun xamul santas ak yooyu ñun gëm-gëm bi ñu am ñii fi nekk tey bu noon suba suba ñu waar leen dañuy teewaat ñun bokk ñoo ñi nga xam ne dañuy dajale di fay ay nit 1500 1500 pour ñu teew ci ndaje ma ñun ndaje mi xew di xam nañ ko ña fa ñëw dañ leen a fay 1500 1500 pour ñu teew fa ñun duñu luyee nit duñu abbu nit li ñu yor ñoo ko moom te président Macky Sall lañ koy jox ku xool xar kanam yii ci sama nga xam ne waa parti baa ngi nii xool xar kanam yii ci sama wet nga xam ne ñii ñoo nekkoon dekkal ngor ñii ñoo nekkoon deux mille deux mille douze ñii ñoo jàppale président Macky Sall ba mu gagné waat deux mille dix neuf kon man loolu amu ci tiitukaay parti bi nag ñoom xam nañ xam nañ ñi ne ci terrain bi xam nañ ñiy liggéey liggéey bi xam nañ ñi nga xam ne président Macky Sall rek moo leen ñor. problème bi nag yomb naa comprendre élection yi dafa ñëw nit ku ñuul dafa tàmm lu mu ñam mu neex da koy dolli. comme moom santa na euh, euh, ci président deux mille présidentielle deux mille dix neuf euh, leader Moustapha Seck santazoon na ci présidentielle deux mille dix neuf gars yi woo ko jox ko as koppar jox ko ab oto muy naat moo tax cette fois ci mu ni lool ñoo ñamoon naa ko neex na du ko bàyyi naa ñëwaat santazaat daani ni may santage bii pa nii lay demee xa zone 2 taxuñu maa jóg kilifa yi ca kaw ñoo ma tax a jóg soit dinaa wax ca mairie Touba loo xamante ni comme sëñ alaaji fa lay ne alaaji loolu lay tala lijjanti baa ma wax ci dëkk bi ci njabootug sëñ Fallou alaaji loolu lay tala lijjanti baa ma wax ci kilifa yee ca kaw ministre yi dèjà dégg nga mu digg tudd ministre de l'intérieur daal ni bu ko defee waxuma departement waaye kilifa yooyu ñoo may woo buñ ma wooyee négocier ak man yéen dootuma am seen jot ñu ngi ak moo ko wax moo ni man dinaa wax loo xamante ni duñ leen tal sax yéen dañ may woo négociation ca kaw kon nan toog déglu xam naa monsieur le maire euh, laaj ko moom su ko tuddee 100 pour cent bi pare nan pour tontu ko coordonnateur euh, Matar Diop ñu taxaw pour jàppale ko su ko tuddee yaakaar naa am na ñeneen ñuy wax ak moom. bu dee fii ci zone 2 nag moom lam fi musoon dootu fi mus maa ngi interpellé nag 11 zones yi nekk tubaay yëpp ñu bañ loolu. parce que nekk ci terrain bi di liggéey bu campagne jotee ñenn rocceeku dem di négocier ñu leen di jox yow mi nekkoon ci terrain yi loolu day day naqari xale yi ndax bi nekkee ci terrain bi di campagne. ñu yóbbu ko ca kaw mu négocier ñu jox ko oto xale yi nga xam ne xamuñu luy politique xawoon na leen a metti léegi nag en zone yi fi nekk yëpp maa ngi leen interpellé loolu buñ ko nangu parce que loolu mooy objectif am daf ni naa xas naa tuumaal naa wax lu bon bu ko defee kilifa yi woo ma daal ni bàyyi leen coow li yóbbu ma ca kaw ma négocier am la ma amaat bii paadu jàll zone bi day dem ça ne passera pas zone bi day dem incha allah dinañ liggéey li ñu war a liggéey duñ ci boole xuloo duñ ci boole xeex bu yàgg ba tey nag mi ngi dem ci média yi di wax mosoo leen ñëw dégg ñu wax ci média c'est la première fois parce que danoo gis ni jaru ko comme terrain bi yaatu na liggéey moo am solo moo taxoon ñu nekk ci terrain bi di liggéey rek saa buy wax ñu bàyyi ko mais nag koo ni du ma la topp fu ngeen jëm daal soriwul moo tax nag ñu arrêté cette fois ci di ko wax ne lii ngay wax nekkul mi ngi wax euh, coordonnateur El Hadj dafa génn communiqué nii sëñ Abdou Fatah moo ne ko mooy coordonnateur gis nga boo def taalibi nga gëm sëñ Touba bul sosal ay kilifa parce que loolu amul fii fii ñi fi ne ay politiciens la ñoo xool ba mu neex leen ñu xool ni moom mii kat am na lum ñu mën a apporter comme moom war nañu dem ñu xëcc ko mu app pour mu ànd ak ñun apporter ñu lim man ñu it ñu apporter ko lim man looloo ko fi indi woon ca 2019 mais du teegul benn kilifaa ko woo ni ko kaay jiite da di nag ab murit lu muy def dina ci laaj ndigal loolu moom mënuñu koo bañ ci yoonu murit waaye nag nekkul ni da koy manigancé wula mu koy waxee neneen loolu rek lan amoon ci di ko leeral mu xam ne nag chantage yi nag noo ngi prêt di déglu mu dem ci média am na sax lu mu wax nee na xam naa ne alaaji daf may porter plainte bu ko defee loolu li mu ci jublu mooy wax loo xamante ni alaaji da koy porter plainte kilifa yi dem ñaani bu ko tëj mais kenn du ko porter plainte na wax lu ko neex Touba gépp nan xam ne li muy wax lépp ay sos la duñ ko porter plainte duñ yàqal suñu liggéey ma wax lu ko neex kenn du ko porter plainte bu dee buntu boobu la bëgg a jaar pour kilifa yi woo ko cette fois si échec na ñoo ngi jéggalu. maa ngi ci Soora Ndiaye mii moom mi ngi fi teew ak mbootaayam ku ñu wax say Diop mi ngi fi teew ak mbooloom Ngom ak kan ngi fi teew ak mbooloom mboolem responsable yi ci dëkk bi yëpp ñu ngi fi toog. fas yéene jàppale nag Matar Diop ba li ñu ci jëm ci kanam yàlla nañu ci yàlla defal ndam ñu ko koy ñaan ci yàlla yàlla nañ ci dugg ak bisimilah rahmaani rahiim génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin ñooba Diop moom itam mi ngi ki mook Soora Ndiaye ñoo nekk njiyéen ñoo it ñu ñoom ñu ngi ñu ngi ci liggéey liggéey bu am solo Soora Ndiaye nag moom dama naw naa ko sax nag ndax man mag laa waaye léeg-léeg ma tontu waaye moom lu sera rek lay wax googu yoon moom moo ma ci moom ndax man man moom ma xaw a mer moom waaye Soora ma ci doy moom moom ak Baali Mbaye Baali Mbaye wax naa ko ak Baali Mbaye Baali Mbaye moom mi ngi ci biir moom mi ngi ci liggéey bi moom daal dafa ñëpp ñi liggéey ñëpp daal moom ñu seen gannaaw moom ñu ngi liggéey ñu ngi ci gannaaw ma ne ci ànd ak suñuy càmmiñ ak ak suñuy doom ñu fas yéene liggéey jàppale ndindi ñu jàppale Matta Diop moom du amee bëgg nañu jàppale nañuy jàppale ndindi yàgg nañoo def formation yàgg nañu sonn waaye gisaguñu suñu bopp ci parti bi ban belee wata ba léegi ñu moom la àndal di watee moom nii luy àndal la ñuy li ma dañ ci photocopie mën naan mën na ñaar téeméeri photocopie te ñoom ñëpp moom lañ fa séenee sànni carte waaye nag gisaguñu suñu bopp 100 pour cent nag loolu lañ bëgg mu roñ dañoo bëgg a gis bopp nag ci parti bi ndax dañ cee sonn fii moom mi ngi bëgg a sori mi ngi bëgg